jox nañ la paas wala paasal nga sa bopp ñu yaa ngi dem màkk war nga bàyyi xel sa dund sa gannaaw yow ji dem sa ko bi am war ngaa am autorisation bu jógee ci sa mu authorize la waaye tamit nga am nyu andal nyu xam ne ñooñu ci kaw ndigalal sa jëkkër ci ñooñu nga demee loolu nag nañ ci allah képp ku fi jóge ci loxo yi ngay tege yu wóor la yoo xam ne sa jëkkër du ci am ñaari xel bu dee ko sëyul sax nag amuñ ci ñaari xel waxuma la ak nag kii sëy mbokk jullit bi nga jóge fi nag war a dem fu ñuy wax màkk war a jëflante ak jikko yu bari mooy kenn ku ne am na jikko boo amee yow nga war a tolérer jikko yooyu yépp dëkk ak ñoom ca màkk ak Medina ba ñibbisiwaat Gambie te kenn ci ñoom du la sikk loolu jafe na kon il faut ñu góor góorlu ci wàllu jikko yi il faut ñu góorlu ci wàllu sunu dëkkin ak sunu nekkin te ñuy déglu yi tamit ñi nga xam ne ñooy gaayit si parce que wax dëgg yàlla dem ba foofu nga aw sa yoonu bopp wala nga teggi seen ndigal dafay indi juyaloo ci wàllu liggéey bi nga xam ne ñëpp la ñuy dimbale ñëpp parce que réew mooma ma soo fa dem réew mooma ma mënoo fa yóbbu sa bopp ci lenn boo réeree ñoom sars la ci ñoom pour ñu dem seeti la kon bu leen teg coono ba nga xam ne lépp looy def na doon lu leer ci ñoom su ko defee incha allah nga doog a génn wala nga doog a def sa jëf ñuy ñaan gaa yit si tamit ñu dimbale ci ñi nga xam ne dañuy dem ci wàllu liggéey bi parce que kiy dem màkka am na loo xam ne ci dundam bi mun naa am dootu ko gisati mun naa am mu ngi ko nimsee woon mu nga am mu ngi ko doon dégg bul tayal mukk fépp foo xam ne mandarga la boo xam ne lislaam mas na fa taxaw rekk dimbaleel ujaaj bi jàppale ko ba du ko kenn du ko ko nettali bu ñëwee moom it mu am lu mu mën a nettali xemem loo jullit yi jaamu yàlla bu leen tayalee nañ leen di xiirtal ci jaamu yàlla bu ñu yem rekk ci won leen jàkka ja dem déedéet léeg-léeg ci biir hôtel yi ñu dal war nañu dugg ci biir room si wala ñu dajale mbooloo yi ci biir saal yu mag yi di leen gën a yedd ci wàllu jaamu yàlla ne leen nag gaaw leen de gam fii juróom-ñetti fan ngeen rep rek ngeen fi am góor góor lu leen ba juróomi waxtu julli yëpp dee leen ko defee ci jàkka ji kooku di ko pratique de nekk ci xelam mi ba yàlla dimbale ko incha allah mu defaroo màkk defaroo Medina balaa ñib si Gambia loolu liggéey bu am solo la jihaad ju mag la daawa bu mag la ñu di ko góorgóorlu di ko def loolu it ñu ngi koy yëpp ci wàllu ujaaj yi ñu ngi koy yebi tamit ci wàllu ñi nga xam ne ñooy gaay si yi nga xam ne ñooy dem incha allah mbokk jullit bi ñu dog laa jàngal nag lan mooy aj lan mooy farata ya ponk ya mu am ak la nga xam ne mooy sunna ya ca nekk lu ci mën a nekk mbokk jullit bi incha allah ñu di la dig ne nag ñu topp sunu programme yi di ñëw ñu jàngal la ci moo xam yaa ngi ci biir réew mi ndax wax dëgg neex yàlla dinañu profité di ci gërëm GRTS ndax Euh, liggéey bu rëy la ñu def euh, foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga topp sunu programme xam-xamle moo xam ci wàllu euh, satellite bi la wala moo xam ci wàllu internet bi muy YouTube semaine bu nekk lépp lu ñu waxtaanee fii incha allah boo ñu toppee ci YouTube di nga ko am incha allah ci website bi nga xam ne moom la GRTS di woyoo ci YouTube bi incha allah mbokk jullit bi loolu ay facilité la yoo xam ne foo mën a nekk mën nañ la fa fekk di la gindi ci sa wàllu aj ci àdduna bi mbokk jullit bi aj màkka benn yoon la nekk farata ci dundu jullit bi alxajju fardu maratan fil umri nee na benn yoon rekk la nekk ci dundu doomu aadama bi ndéem joxe na ko farataam wàcc na ko leneen lu mu defati naafila lay tudd mu ne waaye arkaanuha in arkaanuhu in tuj bari mu ngeeg ponk yoo xam ne ku ko bàyyi mënoo ko jangaat mënoo ko defaraat am na yi nga xam ne ku ko bàyyi mën nga ko defar waaye am na yi nga xam ne ku ko bàyyi mënu ko defaraat ponk yooyu ba ca njëkk mooy nga xarmal xarmal nag dafa am ay miiqa waaye nag li gën a yombal àdduna ci jamono fi ñu toll mooy xujjaaj bi xarmalee fii ci Gambia bu jógee di aji mu armal ci këram jëm Medina su ko defee ci xeeti xaj gi muy def mu yéenee fii am na ñaari yéene nag yu am su la neexee mën nga armalee Gambia waaye tamit comme que da dem jiitu nga jublu ci sa aj mën nga dem ba Medina nga xam ne soo déparee nag Medina war a jëm Makka foofa am na place bu ñuy xarmalee muy Biiru Ali foofa nga jaar fa na ko nit ñi di defee nga xarmale fa wala ci hôtel bi nga nekk nga sangoo fa def fa sa ñaari rakka yéene fa sa armal su ko defee boo demee ba fële yi tamit nga julli fa sa ñaari rakka continuer waaye lu mu ci mën a doon ñaar yëpp wér nañu waaye li nga xam ne moo dëppoog li xam bind mooy ne nga armale ca biiru ali loolu mooy li nga xam ne moom la téere yi bind waaye ni nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi lime mooy nga xarmal ah, soo xarmalee mu ngi indi ne wal waajibaatu xayru arkaani bidam xat jubirat min xaa tawaafu man xadim su ko defee yi war ci aj ji nga xam ne ay warteef la moom dina ko jangee dinañ ko jangee deret su fekkee bàyyi nga ko waaye ponk yi daal yii nga xam ne soo ko bàyyee mooy xarmal taxaw arafa wër kaaba gi nga xam ne mooy safa ak marwa yooyu ay ponk la yoo xam ne incha allah benn bu ci ne dinañu ko faram-fàcce dinañu wax nañ koy jëfee dinañu wax it soo ko bàyyee nga xam ne doo mën a matal sa aj su ko defee am na yu ci am solo muy xarafa alxajju xarafa boo demee ba arafa da ngay gis ne ñi tëdd l'hôpital sax dañ leen di indi te dañoo aj si woon ñu indi leen ci ambulance yi ñu teew fa ngir ñu fekkee indaayu arafa su ko defee mbokk julit bi lii la ñu doon màndargaal ci wàllu aj ihraamu miqaati fa dul olayfa li tayba li saami wa misral juxfa xarnun li najdi zaatu irq lil iraq yëlam la mu yemani aatiha wifaq tajarrudin min almaqiiti talbiya wa alqa ma aram yi jimaani tawfiya mbokk yi ñu ñuy wan waxtu wi li ci des bareetut waaye programme aj programme la boo xam ne incha allah dinañu ko toppante ak yéen ba ni ujaaj yi di ñibbisee nganale ya ca war ak lañ cay def ak lañ cay yedd ci doom aadama yi ak lañu tawat nga xam ne mu ngi yàq ci wàllu jikkoy doomu aadama yi ci lu ni mel loola incha allah programme mu xam-xam ne dinañu ci gën a xóotal dinañu ci gën a yaatal waaye ñu ngi ndokkeel mboolem réew mi ñu ngi ndokkeel mboolem xujjaaj yi ñu ngi ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jëm sa euh, di joxe ji seen farata ñu dénku leen ne yéen a ngi seeti ki tax ñu bind leen yéen a ngi